جميع الاخوان جزاكم الله خير كيف يكون سلوك اختيارات عمرنا ما قلت يا رب مريم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا القصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر حضرة أساتذة الأماجد أيها الإخوان في الدين العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم إليكم تحية أخوية ودية إسلامية يصحبها سلام من الله جل جلاله وعز كماله نقدم العذر إليكم أنني أرى نفسي مضطرا أن أخاطب إخواني بلغتهم القومية بعدما سجلت لكم التحية والاحترام الواجبان لحضراتكم وهؤلاء الذين مزحوني بلادهم ابتغاء الرزق لأن ذلك من الواجبات الدينية قد ابتعدوا عن بلادهم وعن قومهم وكان من الواجب أن نحضر إليهم ولو في خمس سنوات أو أكثر وذلك للتذكير قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لأن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد لا بد من جلائها فالقلب مثل الثوب الذي يلبسه الإنسان فإذا بقي معه مدة طويلة لا بد من أن يتوسخ فيحتاج إلى الغسل فهذه هي الموعظة فقد أوجبها الله تبارك وتعالى كما فرض على عواتقنا واجبين اثنين احدهما النفر الى ابتغاء العلم والثاني التعليم والوعظ حيث قال في كتابه العزيز فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون لقد قيل منقولا عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى في يوم القيامة لا يسأل الجاهلين هل تعلموا إلا بعد أن يسأل العلماء هل علموا فالشعور بهذا الواجب الديني هو الذي جعلنا نقطع الفوافي والموامير للحضور إلى هنا كما حضرنا قبل ذلك في كثير من المدن في هذه السنة وذلك لأنهم يستدعوننا بشدة احتياجهم إلى ذلك لأجل هذا نحضر لنؤدي هذا الواجب العظيم الذي فرضه الله علينا جميعا لذا نعتذر إليكم وفي قلبي الأسف أن أغادركم لأخاطب هؤلاء الذين يحتاجون كثيرا إلى هذه الموعظة إلى هذه الكلمة أجل هذا نستأذنكم أيها السادة إن سمحتم أن أثني العنان ونوجه الخطاب إلى الإخوان في الدين مخصصين بجزء من هذه المحاضرة كما طلبوها مني قبل ولم أكن على بينة من أنني سأجدكم هنا أيها العرب يا إخواننا في الدين المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها كشخص واحد يشعر كل واحد منهم ما يشعره أخوه ولو في أقصى المشرق أو في أقصى المغرب كما قال عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم وهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وهم كالجسد الواحد يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى إذا نستودعكم الله ونعتذر إليكم عنانا بنخاطب هؤلاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته suñu mbokki Sénégal yi gannaaw ba nu leen nuyoo sant leen ndokkee leen ci daje bi muy daje boo xam ne diine rek ko waral daje bi diine di li gën a war bu fekkoon ne xam nanu ndax doomu aadama amul lu dul adduna barzax al axira adduna am lu mu ko laaj alaxira ak barzax am lu mu ko laaj te lu ci wàññeeku rek mu am sikk yàlla def nag du ko yëg yëg gam ko war a yëg fii mu ngi fii ci àdduna ala qaydi xaya diine moo war a njëkk a mat dara waru ca manqué ndax la muy fàggu moo ëpp solo lii li ci des di fàggu kon bu ñu sàgganee li ëpp solo ngir li gën a ñàkk solo bu ëllëgee la mu nuy jural réccoo ca gën a néew doomu aadama jëmm la muy yaram ak roox lu ci nekk am lu mu sàkku ci nit ki moo tax waru la mën a toog mukk te deful dara minute bu mu sànq bu ëllëgee dana ko jooy dana ko metitlu dana ko naqarlu gannaaw nag ñaari xaaj yooyu nga xam ne moo sax moo sos mooy nekkal doomu aadama bi muy yaram ak roox lenn lu ci nekk am lu mu laaj bu ñu dajee texe mat moo tax shaari bi ne maa ahsana diina wa dunya ida jtamaa laa baraka allahu fi dunyan bila diini mu ne dana rafet lool nit ki jox addunaam xàqam ji moom yépp ngir nam ëllëg jox itam ëllëgam xàq ja ca war ngir bu ëllëgee mu texe ngir sàkku yërmande yàlla ak ngërëmam ak joxelam alquran ne wala tansa nasibaka min addunia wa ahsin kama ahsana allahu ilayka bul fàtte sa cër ci àdduna ndax kon am lu des ndax jullit warul nekk charge ci kaw keneen kon war na fàggu àddunaam te jullit dafa war a sonn ngir jëriñu jëriñ ñi ko wër jëriñ jullit ñi ci des jëriñ ñeneen ñi jëriñ googu muy jëriñ boppam bu fekkee ni yéene rafet na mooy leen fas yéene waxtaane wala bokk na ci waxtaan wi dafa mel ne ak jaamu yàlla la jëriñ gi muy jëriñ ñi ko wër ñi ki ak njabootam ak i waajuram moom taxul ñuy wax jëriñ gi muy jëriñ keneen rawatina moo tax xukkamaa u yi dañuy wax allahuma inza dunia min qalbi wala tanziha min yadi allahuma inza dunia min qalbi wala tanziha min yadi suñu borom yàlla na nga génne adduna ci sama xol te bu ko génne ci sama loxo adduna nekk ci say loxo nga jëfee lañ nga ci sant te doo ca wàññi dara doo ca yokk dara kenn li nga mën lépp ndax yàlla dafa xam nit ki man-manam fu mu toll laaj ko nag sant ko nag mu def li mu mën lépp lu ca manqué bu ëllëgee bu la ñu yey ko kon suñu borom nga bañ a génne s- kàttanu adduna ak mën-mënu adduna ak njëriñal adduna nga bañ koo génne ci suñu loxo waaye nga génne ko ci suñu xol ba nga xam ne bu ñuy jëfal adduna it dañu koy jëf ngir ëllëg ngir ëllëg اعمل لدنياك كأنك لا تموت أبدا واعمل لآخرك ك- كأنك تموت غدا maanaam li mu tekki moo di ne li ngay jëf ci adduna lépp yaa ngi ci namm alaxira ni nga xam ne sahabatu rasul alayhim akbaru ridwan noonu lañ daan jëfe da ngay gis kenn koo xam ne bëccëgam yépp daf koy jeexal ci xare guddeem yépp mu jeexal ko ci jaamu yàlla bu fekkente ne xare ba yàlla dugalu ca bakkanam bu dellusee bëccëgam bépp mu jëf ko ci liggéey ba dajale alal ju bari yëkkati ko def ci yoonu yàlla def ko ci lislaam xam ne bu fekkente ne ni nga xam ne noonu la suñu borom santaane taamiru dunia li iradatil axira taamiru dunia li iradatil axira mooy nga jëfal sa adduna ba mel ne doo fi jóge mukk ndax bu fekkee ne yow li ngay jëf da nga ciy yéene sa njëriñ ba mu mat sëkk ba doo war kenn doo aajowoo kenn doo toraxlul kenn ndax toraxlul ku ragalul yàlla ngir la mu am day demee sa ñaari sulu su diina lay lay dindi ci yow maanaam bu fekkee ne yow tàyyal nga wala nga sàggan wala nga def loo xam ne lii day tax nga tardé ba li nga war a am amuloo ko nga aajoo woon nag lu ëpp li nga am nga war koo wuti bu fekkee ne dem nga fi koo xam ne ragalul yàlla nga di ko toroxlul wala nga di fa suufe ngir bëgg lu mu la dimbalee sa ñaari sulusu diine maanaam ñaari ceeri diine dem na loolu moo tax jullit bi war a góorgóorlu waaye nag li muy liggéey lépp itam bu mu yéene jee ca la mbir ma nekk bu mu yéene ne daf koy jëriñoo rek ne yéene na lu mu ci jëriñoo ngir yàlla la ndax ab jullit la te jullit dafa war a am li ko war lépp jëriñu ngir dëgër ngir mën a jaamu yàlla ngir itam jëriñ keneen bañ a sës ci kaw kenn bu ko defee li muy liggéey lépp jaamu yàlla lay doon lu mu am ci alal itam bu ci génnee xàqam continuer ci loolu jaamu yàlla lay doon nga xam ne kon ni ñu ko sante woon moom la jëf noonu la saxaaba yi doon def nit gannaaw ruux la ak yaram te kenn ku ci nekk am lu mu laaj suñu borom dafa sant kon jëf jëmm ji mu jëf loo xam ne mooy setal ruux gi moo koy fóot ba mu set ba texe am ëllëg mooy jox liggéey itam lu jëmm ji aajo woo ba mu amee ko na mu ko war a amee ba nga xam ne liñ ko tere lépp du ca laal dara wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu suñu borom dafa sant jullit ñi ñu jëf mu ne yàlla akub yonentam daañu gis li ngeen jëf kon jëf mooy li nga xam ne moo ñu indi ci àdduna ndax doomu aadama dafa ñëw fii ci àdduna ngir jàng bu mokkalee bu ëllëgee dana tari bu mokkalul daañu ko tari lool bu taree te mokkalul xam ngeen la cay tego bu mokkalee it xam ngeen la cay tego waaye nag nit ki na nekk ala kafatayil misaan na jox adduna ji lim yeyoo képp bañ koo ëppal jox itam àllaaxiraam ëllëg lam yeyoo waaye bu fekkente ne li muy jox jëmm ji tey li mu nekk bànneex bu teew ak li nga bëgg te mu teew topp na ko ba fàttalile dana indi ëllëg laago bu ñaaw buy lore ndax adduna day ware fi mu nekk kenn nit xamul ndax danga fekk ëllëg wala du fekk ëllëg bu fekkente ne bis boobu gaaw na fekk li nga dajale woon lépp jotuloo ci def dara lu jëm ci yàlla dawaloo ci dara ngir sa ëllëg ah bu ëllëgee boo demee fee doo fekk dara li ñu tuddee taflis moo di ñàkk ñàkkub ëllëg fàtte sa bopp fàtte àllaaxira fàtte sa ëllëg moo koy waral ndax nit ki ni mu bëggee addunaam jàkk war na koo bëggee àllaaxiraam jàkk ndax àllaaxira ëpp solo adduna te adduna moom luy jeex la fa amma man taxa wa aasara alxayaata dunya fa inna aljahima hiya almawa wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an alhawa fa inna aljannata hiya almawa képp koo xam ne da ngaa ëppal taxa mooy fa nga war a yem yemuloo fa da nga topp adduna ji fàtte ëllëg suñu borom bu ëllëgee bu fàtte la ndax wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qaala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basiran qaala kadhalika atatka ayatina fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa bu fekkente ne da ngaa fàtte sa alaxira fàtte yàlla ngir sa adduna bu ëllëgee boo ñuy dekki gumba ngay doon doo gis doo doo dégg da ngay tëx da ngay say wax ci sa xol lay nekk boo dee suñu borom lu tax nga dekkal ma may gumba du ma gis dara ma dégg te man ci adduna dama daan gis di dégg ku ne la da ngaa fàtte woon sama kawteef yi sama kéemaan yi ma wàcc ci adduna ngir nga dellu si mbir mu yeel ak mbir mu fàttali la ngay toog léeg-léeg jotaay boo xam ne da ngay delloo si sakaratul mawti sukuraat da koy delloo si xam ne lu yàgg-yàgg da nga fa jaar te xamuloo kañ la sukuraat mbir yu tiis a fa nekk diggante boobu faral nañ ko wax rek ndax mu sax ci xol yi fi baaraami tànki nit ki tàmbalee sedd roo gi di génn mu xulli bëtam yi di xool malaayika yi amatul benn atteb àdduna atte ba sax teew na xar nga xam ne ay jëfam lay jëkk a gis ak pas-pasam diggante boobu lu mat di bàyyi xel la ndax tiis na tiis goo xam ne kenn mënu koo waxtaane xajul sax ci xelum doomu aadama wala ci xolam wala ci xam-xamam mbir la mu doo doy waar te mën naa gaawe fi nit ñi ne xefiinu bët yàggee ci boroom ne téeméeri at xam ngeen ne jamono day tawibu xam ngeen suñu borom moom nekkul ci jamono bu ko neexee lu lu gàtt ne xefiinu bët mu def ko junni at bu ko neexee lu gudd ne junni at mu def ko mu gàtt ne xefiinu bët waaye sukuraat fa la jëf yi di xaare nit ki jëf yu rafet yi ak jëf yu ñaaw yi ci sukuraat lañ koy xaare jëf yu rafet yi ñooy tax malaayika yi yërmande yi teew bu ñu teewee bërëb bi dal di leer sedd neex jaam bi am yaakaar bu fekkee ne malaayika yi mbugal yi ñoo teew ak seytaane yi te yépp ci ay jëfam rek lay jógee nit ki dina am tiit moo xam ne amul dara lañ ko mën a misaale xolam bii day mel ne day xolli ko di wadd ndax tiit suñu borom nag ku ko jaamu moo la moom ku ko jaamu nit moo la moom kon nag ku yëngu jaamu ko bàmmeel nit ku ko leeral da nga fa dugg ku ko leeral nit da nga fa dugg nee ñu it lépp loo jaay sa ndaw boo màgg it loola la moom kon loolu lépp lu mat di seet la sallallahu alayhi wa sallam nee na laysa laka min maalika illa ma akalta fa afnayta aw ma labista fa ablayta aw maa qaddamta bayna yaday amuloo ci say alal ji lu mu bari bari li nga lekk mu rees li nga sol mu ràpp li nga dawal ci sa bàmmeel bi jëf nag gannaaw dundu nit ki dafa gàtt te li muy am jotu jëf moo ci gën a néew war nay seet pexe yoo xam ne dana tax jëfam sakkan mu jëf jenn jëf rek mu toll ne ku jëf téeméeri at moom rek mooy bénéfice am arul beneen loolu lépp mu ngi aju ci setaayu xolu nit ki ndax xol dañ koy setal dañ koy fóot te nit day xisaab bopp bu bañee ëllëg xisaab dañ koy xisaab metti ndax bépp jëf pour jëf te du noonu def na benn tomb bu ñuul ci sa xol bu tomb yi baree ba teg xol bi xol bi dootu gis dara dootu bëgg dara lu baax li gën a bon li koy lor lay bëgg bëgg koo xam ne bañ nag li koy jëriñ ba nga xam ne jàpp fii julli ñaari rakka ñoo xam ne du farata sunna la ma ne lu nekk dem fii fukki kilomètre dellu seen koy gën a yomb loolu la ñuy wax ar raynul qalbi kalla ba raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuuna xatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim xichaawa jëfi nit ki koy waral nit ki day jëf jëf yu bari fàtte àllaaxiraam xuus ci àdduna xuus ku ëpp koo xam ne daraam génnatul àdduna ay xalaatam bëgg-bëggam ay noppam yi muy dégloo ay bëtam yi muy seete lépp ci àdduna la yem xuus ci ba lapp ci boobaa xolam gën a lëndëm gën a sori yàlla gën a jege safara gën a jafe mucc mucc gën koo jafe dootu nangoo ay minute wala waxtu dootu ko nangoo def ci lu jëm ci yàlla du ko néeg ndax day bëgg dellu ci àddunaam benn muy sabab lu nu mu jëriñoo wala muy waxtaan wala muy seetaan dara lu neex wala mu ne ci leneen loo xam ne rek daf koy faat loo loola bu bu ëllëgee mu nekk di aji ñàkk yoo xam ne bu nekkee du yor dara du am dara bu nekkee ci bàmmeel itam du am lu mu dundee ndax bàmmeel bi nit ki bu ci nekkee aajo woon a añ ak reer ak ndékki te si jëfam rek la koy defee bu fekkente ne nag jëf ci matewu ko bu jeexee day toog rek day toog ak xiifam wéyee xiifam te xam nga ne dee wéy na dootu dee waaye nag métitu xiif ak naqareem moom mooy li nga xam ne moo koy sonal bu ko defee buñ ko nee woon ana loo bëggoon tey jii ñu may la ko du ne àjjana de du ne texe def naa rek dellu àdduna ngir bu doon sax benn saa ngir ma jëf loo xam ne bu ma dellusee mu jariñ ma ah sa mbokki jullit yi nga xam ne ñoom nga nekkal ci bàmmeel yi bu leen borom basira borom basira ku am kashfu bu leen xoolee dana gis ne ñii ngi sañse di diri seeni malaan di siyaarente ci bàmmeel yi ñii ngi lekk ka naan gis koo xam ne day toog du lekk du naan dana rus a génn ndax du sol dara lu baax wala lam soloon gàtt ba nga xam ne dana rus a génn gis ngeen ko ci silkul jawaahir jëmm ji nga xam ne benn wàll yi boo xam dafa doon dox ba jaar ci bàmmeel yi gis benn nit boo xam ne jigéen la moroomi jigéenam yi ñu ngi sañse di siyaarante ñi ci bàmmeel yi dégg ngeen ñu naan nit bu faatoo ñeent fukki guddi yëpp ruuxam day nekk lu ñu tinki muy wëndeelu di dem këram di seet ndax miraas nañ ko ndax ña nga fay def lu dul noonu ndax ay doom ñu nga leen di duma ndax fay nañu ay borom yooyu yëpp daf koy seet bu xamee ne ñeent fukki guddi yi mat na nag mu soog a toog dootu génn ëttu bàmmeel yi léegi nag bu fekkente ne jigéen jooju moroomam yi ñu ngi ziyaarante sol yëre yu rafet moom mu toog waliyu bi laaj ko ne ko yow lu tax doo ànd ak sa morom yi mu ni man de bi ma faatoo bi ñu may suul càngaay li ñu ma sàngee woon dafa gàtt dayu jot ba noppi rafetul moo tax ma rus a génn kon amul yëre yu mu sol ba mel ne moroomam yi kenn ki dañ koo gis muy góor moroom yëpp a ngi téem ay xéewal di xéewalu moom xéewloowul dara tiimul dara waa ji bi mu ko laajee xanaa da nga amul doom mu di la ñaanal mu ne ko am naa doom waaye fàtte na ma ndax dafa topp adduna bi bi mu ëpp kooka moo dem ca doom je sa wax ko mbir yi ni mu demee ba mu di ko ñaanal ñaar yi mu koy ñaanal waxtu mu jullee nag moom moo tax wuuteetul ak ña ca des bu ñu tiimee xéewal mu tiim xéewal kon jullit bi bu fekkente ne mu ngi delloo si xelam ci yooyu nga xam ne yépp mooy li ko lislaam sant melowoo melow ku gëm ëllëg ndax ku gëm ëllëg da nga fàggu ëllëg da nga xalaat ëllëg ki gëmul ëllëg moom yoonam ci ëllëg waaye ki gëm ëllëg bu mu seet ki gëmul ëllëg kon ki nga xam ne moom gëm na ëllëg bu toppandoo ki gëmul ëllëg day yem ak moom ëllëg te moo ko gën a réccu ndax kee moom gëmul woon yàlla defu noonu mu gëm ki gëmoon nag ba noppi ki gëmoon nag ba noppi te moroom mën a jëf moroom yëpp jëf mu bañ a jëf kooku mooy rëccu rëccu bi gën a metti ëllëg bu fekkente ne nag xam nga li nga xam ne moom lañ la digal te jaar ci yoon wi di koy laa tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum julli dëgg boo xam ne ngëmam mat na ndax ngëm dañu ne mu ngi mel ne doomu xar bu ndaw boobu yow yaa koy yafal di ko yar di ko sang muy gën a màgg ba ba muy rëy daan waxtu ci kanam jëf ni muy dollee ngëm leeru jëf ni muy dollee leeru ngëm ba nit ki gën a gëm ngëmam gën a dëgër bu fekkente ne ngëmam a ngi mat bu fekkee ne am na lu mu bëggoon di ko sablu te amu ko lu tax mu xaddi lu tax mu am naqar lu tax mu jaaxle ndax benn gënul ci moom moo tax suñu borom jox ko ko wala watteel na ko ko leneen loo xam ne moo ko gën te bu ëllëgee bu ko joxee loola mu xam ne moo gën li mu doon sàkku bu fekkente ne am na itam lu mu ñàkk wala dara lu metti dal ko dafa war a sant yàlla ndax jaamu yàlla gi mu waroon jaamu yàlla te mënu ko loolu ko dal dana wàññi ay ñaawteefam ëllëg te dana yokk ay jaamu yàlla maanaam tuyaabay jaamu yàlla am ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne da nga gis yamal xiyam koo xam ne dañ koy déndoo ki buum di ko xëcc muy xëccu ñu jëmee ko àjjana ñu ne ko waaw yow yonentu yàlla bi loolu lu ko waral mu ne mooy jëmm ji nga xam ne farluwul jaamuwul yàlla jaamu yàlla neexul ci xolam waaye suñu borom yërëm na ko teg ko ay tiis tiis yooyu muy bañ tiis yi di ko jëmee àjjana muy xëccu ndax maanaam bañ gi mu bañ tiis yooyu xam ne kooku ba tey yërmande suñu borom la waaye nag am na luy tax mu nekk yërmande moo di muñ daan tudd muñ jullit bu kon day war a xam ne rek li ko war mooy sababloo bu sababloo nag am gi na ko wacc ci loxo yàlla bu amee na sant yàlla bu amul na sant yàlla ndax xamul am ak ñàkk am lu ci gën ñàkk am gi mën na gën am ndax yowmal qiyaam sallallahu alayhi wa sallam wax na ko da nga gis jaam bu ñuy décorer di ko teral yëkkati ko ci maqama yu kawe suñu borom ne ko xam nga lu tax ma xañoon la adduna mu ne déedéet mu ne kon ni ma fonk dee adduna ak yow ni ma la fonke rek moo tax ma jombale la ko kon jullit bi xalaat yi yëpp bu ko boolee du jaaxle du tiit lu ko dal du ko metti lu mu wut amu ko it wala mu bëggoon ko te amu ko it du ko metti loolu na fekk rek ngëmam dëgër mu xam ne lu ñëw yàlla te xam ne it xamul la gën ci moom li mu bëgg rek la xam waaye yàlla xam li gën ci moom kon bu fekkente ne jullit bi def na noonu mu xam ne mu kon mooy yoonu jullit wu mu jaar dëgg dëgg dëgg sallallahu alayhi wa sallam nee na mënub tulee fa sabara wa zulima fa gafara wa zalama wastagfara ñu ne ko ñooñu lu ñu am yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ulaayka lahumu lam wa hum muhtaduna koo xam ne yàlla nattu la na nga muñ ñu tooñ la nga jéggale nga tooñ jéggalu ñooña bu keroogee keroog bisu tiit ba bisu jàqare bi duñu tiit duñu jàq duñu jaaxle seen xel day dal ñooy ñi yàlla jugal manub tuliya fa sabara wa zulima fa gafara wa zalama wa staxfara ulaayka lahumu lamnu wa hum muhtaduna loolu mooy yoonu jullit dëgg dëgg ndax jullit buñ ko nattoo na muñ ndax li ma waxoon léegi te xam ne gañee na ko kañu na tuul buñ ko tooñee ne jéggale ndax suñu borom jéggal ko ëllëg salaam salaam dafa ne man roxi man rahima roxima képp ku am yërmande ku yërëmee ñu yërëm la ëllëg dañu ne benn waay bi nga xam ne dafa doon bind benn aalim la woon daan liggéey bind taalifkat benn bis muy bind am bis mbooye bu tàng naka mu cipp xalima gi ba yëkkati wax nañ ko ci ay conférence yu bari am weñ boo xam ne dafa mar ba su naanul woon dee tak ci daa ji ci xalima gi di naan mu bañ a bind ndax bañ bañ bi naaw bàyyi ko ba bañ bi naa naan ba man di naaw yomal xiyaam bi nga xam ne suñu borom daje naa ak moom ne ko yow yërëm naa la jéggal naa la waaye xam nga lu tax ma ma ma yërëm laa mu tudd jaamu yàllaam gi mu jaamu yépp mu ne ko du loolu mu tudd maanaam julli geeg koor geeg li mu def lépp ak xam-xam bi mu daan yee nit ñi lépp mu ne ko loolu lépp taxul ma yërëm la mu ne ko lu tax nga yërëm ma kon yow buur yàlla mu ne ko bis ba ngay bind ci bis mbooyee boo weñ ba nga xam ne soo ko bàyyiwul woon mu naan dana dee nga bàyyi ko mu naan ba man ni yërëme ne jooju nga ko yërëm laa la yërëme moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fii kulli zi kabadin ratbin rahmatun lépp luy lu am res wu tooy lépp luy dund rek yi yërëm yërëm ko baax na man rahima rahima wala dabihata asfurin ku yërëm dara rek suñu borom dana la yërëm même bu fekkoon picc mu ñu ko sànni ko nga yërëm ko rek suñu borom dana la yërëm yowmal qiyam boo bëggee nag tax nit mën na am wërsëg bu bari te wërsëg waru barkeel jullit bu bëggee wërsëgam barkeel na am yërmande te na def war war yi ñu ko war yi ko war muy farata yi ba noppi tey dimbalee bu ko defee barke dana ko am bu wërsëgam baree dana am barke bu néewee dana am barke te barke moo gën wërsëg barke bu njëriñ ndax barke mooy li lay jëriñ wërsëg mën na bari te du la jëriñ bàyyi barke moom mooy li lay jëriñ wërsëg bi mën na bari ba noppi nit ki dem wàcc ko fi wala am lu ko dal lu tax du ko mën a du ko mën a jëriñoo wala du ko talati waaye barke moom day taq ci nit ki fu mu jëm guddeeg bëccëg fu mu walbatiku buy nelaw ak lépp barke moom du dañ te barke moom day xëcc nit ki ba yóbbu ko àjjana moo tax nit ki dafa war di góorgóorlu bu baax shaahir bi ahmad shawqi dafa ne fa maa naylul mataalibi bi tamanni walakin tuxadu dunia xilaaba fa maa naylul mataalibi bi tamanni walakin tuxadu dunia xilaaba mébét rek du may nit ki dara nit day nekk njàmbaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha tabaraka wa taala yuhibu shajaata xata fi qatlil xayya suñu borom dafa sopp jàmbaar moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne xayrukum fil jahiliyati xayrukum fil islami ki gën ci yéen ba ngeen tuubagul it bu ngeen tuubee mooy gën ci yéen mooy ko gënoon a jàmbaare gën a tabee ëpp yërmande ba léegi bu ngeen bokkee tuubit kookaa leen di gën kon jullit dafa am ay jikko yoo xam ne moom lañ ko sant mu jikko woo ko feeg jikko nit ki nag feeg mu ngi dund rek suñu borom mën na koo may na ko neex mu mel ko ndax mu ngi aju ci góorgóorlu bi rek jéem a baax ñetti téeméeri siddiit ak juróom-benn fukk ak ñett yi nekk ci jëmmi nit nga xam ne leeru ngëmam moo koy leeral benn jikko boo ci xam ne jikko bu ñaaw la buy indi texee di ak couleur ba muy amee bu fekkente ne loo tax cheikhul aarif billahi boo xamee ne bu fekkente ne moom mu ngi lay tarbiya bu gisee ji eh, sidit gi mu wert mu xam ne siditu rëy la sidit gi mu bëlëb mu xam ne kii siditu bëgg daraja la ak bëgg àdduna day daal di xam la koy faj la koy saafara bu dee loo war a def mu sant la ko nga def ko bu dee lu mu war a def ci yow mu def la ko ni nga xam ne noonu la médecin bi noonu la lay passé visite ba xam ne dina dal mu faj la bu xamee nag couleur yooyu yëpp dañ ne nga soog a ne soog a nekk nag aarif waaye bu fekkente ne yow ci sa bopp da nga jéemul dara doo mën dara ndax jëf war loo caa xeeb dara ndax wàññi bu nekk ci benn lay tàmbalee boo mënul junni salaatu ala nabi bis bu nekk xanaa nga mën ñaari téeméeri salaatu ala nabi bis bu nekk boo ko mënul nga mën téeméeri salaatu ala nabi bis bu nekk wala téeméeri astaghfirullah al azim boo ko mënul nga mën fukki astaghfirullah al azim wala fukki salaatu ala nabi bu nekk lu mu tuuti tuuti nga sa nga di ko def toujours rek day nàmm sa xol di ko setal ba mu set ndax gi gën ci jëf yi wa afdalul amali ma taaddat lahu fawaidu ka ilmin qad sabat an jahli zi jahlin wa qubhin yadfa wa kullu ma li zi rashad wal xiyaam buñ ko tegee day leer nañ gis gën fees dell ak mbëg buñ ko tegee ca balance ba mu wat jëf jooju mooy jëf ji gën a jëriñ nit ñi jëf ji ngay jëf muy jëriñ nit ñi da ngay fekk ñaar ñu xuloo wala ñaar ñu juboo di ko nga jubale leen da ngay fekk nit ku jaaxle tiit nga dimbali ko fekk nit ku aajowoo ndimbal nga dimbali ko fekk ku xamul nga xamal ko fekk ku ñàkk am aaja nga dimbali ko ci aaja ji jëf yooyu mooy jëf ji gën ci jëf yi wa maa yusafil qalba ak jëf ji setal xol wa huwa maa uddi minhu mooy jëf ji nga saxal wa in qulli donte lu néew la it comme ni ma ko waxee léegi rek bul ragal ñàkk bul ragal tiis bul ragal xiif bul ragal mar wa man haaba man haaba xaaba man jasara ay sara képp koo xam ne am nga fit akub njàmbaar da nga am tawfiix maanaam li ngay sàkku da nga ko am insha allah wa man jaala naa la man qara al baaba wa lajja wala ja ku dëkk ci fëgg bunt yi rek dana ubbi ko nga dugg fakk ñu ubbil la insha allah shaari bi neen axliq bi li sabri an yaxlaa bi xaajatihi wa mudmini l qari lil abwaabi an yalija aji muñ jooju nga xam ne dafa muñ rek di sàkk di sabablu fokk suñu borom jox ko li muy wut wala lu gën la muy wut ki dëkk di fëgg bunt yi fokk mu tàbbi insha allah mu leer nag ne suñu borom moom muy wërsëgal jaam wa maa yunsabu lil imaam al xuseyni radiallahu taala anhu إذا كانت الأرزاق للخلق قسمة فقلة سعي المرء بالكسب يجمله وقال الشيخ أحمد بامبا إذن إن الله تبارك وتعالى يرزق العباد بقدر همتهم waaye li nga xam ne mooy li am mooy suñu borom mooy wërsëgal jaam waaye nit ki li ko war mooy sabablu li ko war mooy sabablu shaari bi dafa ne kam aaqilin aaqilin ayat mazahibuhu wa jahilin jahilin talqaahu marzuqa hada allazi taraka al awhama xaairatan wa sayara al alima nixrira zindiqa kam aaqilin aaqilin ayat mazahibuhu maanaam ayathu mazahibuhu wa jahilin jahilin talqaahu marzuqa hada allazi taraka al awhama xaairatan wa sayara al alima nixrira zindiqa bari na bu borom xel ku am xel te ñëw mën a fàggu lool wërsëgam bi lu néew nga gis ku gàtt xel dof suñ borom wërsëgale ko lu bari kooku moom mu ne lii nag moo ne moo moo ne xamal ne suñ borom am na mbir mu nëbbu ci biir jaam ñi moo xam ne feeñalu ko ni ma waxee woon sànq rek ni ma waxee woon sànq ci ki nga xam ne suñu borom xañ na ko wërsëg te daf koo bëgg a jox leneen lu gën wërsëg bi beneen saa bi ne wa kam qawiyin qawiyin fi taqallubihi muhazaba ar-ra'yi anhu ar-rizqu munharifu wa kam daifin daifin fi taqallubihi ka annahu min xaliji lbaxri yaxtarifu même maanaa ak mi ma waxoon sànq la toujours day wane rek ne suñ borom mooy wërsëgal jaam benn shaayir mu ne ida samicta bi anna marsuqan xawaa cuudan fa asmara fi yadayhi fa saddiqi wa ida ataaka bi anna maxruman xawaa ata ma an li yashrabahu fa xaaba fa xaqiqi boo déggee ñu ne borom wërsëg dëgg te yéen a bant rek bant ba meññ ci ay loxoom neen dëgg la dafa bëgg a nëmmul lettre bi ñu ko jëlee à la lettre dafa nëmm rek ne wërsëg fu ne la ko bu la ko yàlla bindalee fu ne lay baawoo wutale googu suñu borom wutale jaam ñi suñu yoon waru cee nekk ndax kii wërsëgal nañ ko ci wet gi kee wërsëgal nañ ko ci geneen wet kee ci geneen wet xamul ni tam wërsëgu ñu wet jum nu jum nu wërsëgalewul wet jum nu wërsëgalewul ndax jox nañu fa leneen du gën wërsëg woo wala déet ni ma ko waxee woon rek sànq gën a ko moo tax li war kon ci jullit bi ne dërloo yàlla rek te wakkilu ci li mu bëgg lépp dana ko am insha allah benn mu gaaw wala mu yéex yéex gi it bu mu def ne bu mu defee ne musibaama xëy na mooy la gën ndax xamul nit gannaaw xamul moom rek ki xam na ko bàyyeeg boppam te ak wóoloom dëggu ak ngëmam dëggu dana am adduna am alaxira insha allah bu delloo bopp boromam yaakaar ko suñu borom dana ko wërsëgal fu mu fàggowul yarsuqu laalallah yarsuqu min xaysu laa yaxtasib ndax suñu borom mën na bind lii ba noppi far ko maam cheikh ne na fa anta allazi tuulil jazila min al ata ida chita tamxu kainan maa lahu budd yow suñu borom yaay maye ba maye loo xam ne lii dara kenn amul xolu maye ko te yow yaay ku nga xam ne li mun la ñàkk sax bu la neexee nga far ko dootu am te mënu la ñàkk kon nga xam ne nit ki waru la xaddi waru la naago ah sayidna omar radiallahu taala anhu nee na allahuma in kunta katabta nii shaqiyan famxu waktub nii saidan nga xam ne kon yamxu laahu maa yashaa wa yusabitu suñu borom tabaraka wa taala yaktubu wa yamxu sayidna omar ci ñaanam googu la ñuy xamee ne suñu borom dana bind ba noppi far ko yamxu laahu maa yashaa wa yusabitu sayidna omar nee na suñu borom bu fekkee ne bindoon nga ma di aji texee di na nga ko far te bind ma may aji texe nga xam ne kon suñu borom yaatal na mbir yi yaatal na mbir yi noo ko bëgg a woyofal te it nanu am nag fulla ak fayda mooy xam li nga bëgg mu jar ko nga jox ko la mu la mu aajowoo la mu warloo waaye bu fekkente ne neeñ bu fekkente da nga ne suñu borom lii moom du ma ko jox mukk du ma ko sàkk du la ko jox mukk am na benn jaamu nit ku ñuul ñu di ko wax Kaafuur al al Ixchidi mu ànd ak beneen moroomu jaamam ñu di ko jaay si Misra Égypte bi mu dikkee bay dugg ci dëkk bi waa ji mu àndaloon dal di mébét dal di ñaan ne ak neex yàlla fekk xiif baa ngi leen di bëgg a rey yàlla na suñu borom def ñu jaay ma restaurateur maanaam kuy togg ci restaurant ndax ma lekk Kaafuur ne ko cam man yàlla ma suñu borom def buur mu ne ko yow yaa mën a nax sa bopp nag buur fan mu ne ko ci Misra gii ñu ne jaay si yow nag yaa bari caaxaan yow fontu kat nga man ne damay ñaan li mën a am mu ne ko waaye yàlla lu nekk la man yàlla lu nekk la man waaye gis nga yow mi jaam bu ñuul ñàkk fay dañu di la jaay nga bëgg defe ne mën ngaa nekk ci buur ci misri gi buur waaye dil xalaat bu mën a am waaye mu ne ko gis nga man daal sama xel li ci ne mooy yàlla lu ne la man te li ma bëgg nag danaa ko ñaan su ma ko mayee alhamdulilah su ma ko mayul maanaam ma gis ko it xam naa ne rek may na ma ko ndax suñu borom moom ku tabe la ko ko ñaan te sellal mu may la ko ka ñu dem Kaafuur nekk nit ku bari xel am xel lool zakki yéen di la xaaya bu ma yàlla dogal ñu jaay ko ci kër buur bi bu ñu ko jaayee ci kër buur bi am xel ba nga xam ne buur bi wóolu na ko ba yu bari moom la koy dénk léeg-léeg sax mu am problème bu ñëw moom mu xam nañ koy tur nañuy dal di résoudre problème bi dal koy wax buur bi bi buur bi faatoo mu am nag doom ji tuuti ñu fal bu doom ji waaye comme doom ji xamul dara ñu ne Kaafuur mi nga xam ne daanaka moo yoroon nguur gi nañ ko bàyyi rek buur bi xale bi di buur bi Kaafoor di lijjanti mbir yi Kaafoor di lijjanti mbir yi ba fal ko ba ci ci boppam rek wàcc xale ba daal di daal di nekk buur bi mu nekkee buur benn bis muy doxantu ci Misra ba mu yàgg mu jaar romb benn buntu restaurant waa jooju moom ji ko doon jaayandool daal di ne tëll mu nuyoo ak moom ñu daal di buur bi seetal ki muy nuyoo rek waa ji nga xam ne ci restaurant bi la nekk xam ne booy la bu ngeen xamul lu mu jariñ mu ne gis ngeen kii nit itteem rek. hada qaadat bihi himmatuhu fa taarat bihi himmati ila anani sama waa ji ittee ma ko detteel ci suuf ndax mébatul woon ci yàlla mi nga xam ne lépp la moom mébatul lu dul lekk man nag dama mébatoon nekk buur suñu borom def na ma buur te it doomu aadama bi kon ni ñu ko waxee rek bu ñàkkee ne muñ dañu ne man asbaha aminan fi sirbihi muafan fi badanihi man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu quutu yawmihi fa ka annama siqat ilayhi dunya bi hadafiriha man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu quutu yawmihi fa ka annama siqat ilayhi dunya bi hadafiriha ñi nga xam ne dañoo dëddu àdduna dëgg di nit yàlla ñoo xam ne yàlla fees seen xol ba gisuñu leneen sàkkuwuñu leneen bëgguñu leneen xamuñu leneen sax ñoom dañu ne koo xam ne kii sa yaram jàmm rek ka ci ne yëngaloo yëkkatiwoo benn cër mu metti nekk ci sa biir ay mbokk ak i xarit wóolu amul dara looy ragal ne dina ñëw fekk la fi rey la wala mu fab sa alal wala mu def la dara wala mu jam la nga am loo dundee ci bis bi tey wala tey ak ëllëg dafa mel ne àdduna bépp jox nañ la ko ndax àdduna bépp mun loo cee lekk loo ëpp sa biir bu fees mun loo cee sol lu ëpp benn mbubb mun loo cee bëgg lu ëpp jàmm mun loo cee bëgg itam lu ëpp wóolute maanaam ñàkk am genn ragal wala tiit wala looy looy looy jaaxle kon alal ji buñ ci jëriñoo li nga xam moom lañ ci war a jëriñoo fii ci njëriñ lu teew li te itam nañ ko jubloo ngir yàlla ndax bu fekkee ne jullit bi li mu liggéey mu lew ko mu mën ci jënd àjjana inna laa ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi tawrati wal injili wal qur'an wa man wafa bi ahdi minallahi fastabshiru bi ahdikum allazi baaya'tum bi suñu borom dafa jënd ci jullit ñi seeni bakkan seen deret seen alal seen lépp yéen nag daanaka mën nañ ne deret ji bokk ci xëy na doole ji ak alal ji alal ji du ngeen xare bañ di leen laaj lu bare yéenay seet li tey seen xel li tey seen bakkan coono bi li tax li ngeen koy joxe seen borom mooy bu fekkee ne da ngeen di sabablu li ngeen di sabablu ngeen yéene ci ni ma ko waxee woon rek doylu ba doon laaj laaj laaj yi ndax laaj ci boppam dafa xaraam dañ koo xaraamal dañ koo daganal nag li daroor ci maanaam ngir lor contrainte lu tax dañ ne almaalu shaqiqu ruux almaalu shaqiqu ruux alal mu ngi sax ci xol ngëm mu ngi sax ci xol kon ñaar ñoo xam ne dañoo wute kii xëcc jëmi penku kii xëcc jëme sowu bu ñu bokkee leen di ko xëccoo ku ci ëpp doole rek mooy wat moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na raaytu abdurahman ibn awfin yadxulul jannata habwan mooy raam li nga xam ne nit ki moo ko moom alladina amanu wa haajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim bi amwalihim wa anfusihim nit ki li nga xam ne moo ko ñaq ba moom ko mu yëkkati ko di ko def ci yoonu yàlla moo xam daf koy dimbalee ku lot wala daf koy sarxe wala daf koy joxe addiyee ñu koy waxe wala daf koy def ci yoonu yàlla dimbalee ko jullit ñi moo xam dafa tabax jumaa wala dafa tabax jàngukaay wala dafa dem ci xale yay jàng mu jox leen ko wala nu nga ko mën a defee rek te nga xam ne yàlla tax ma ngay jënd àjjana ci alalam ma ngay jënd àjjana ci alalam loolu mooy li nga xam ne aaju woo woo ko ndax isaar dañu al isaar dafa dafay ga- jaamu yàlla gu rëy saxaaba yi dañ ko doon def dañu ne dafa amoon benn waay boo xam ne dafa amoon benn ci saxaaba yi bopp gëleemam bu mu togg après après defar ko ba mu ñor nga xam ne lekk si des mu seet ne famille sàngam day yaakaar naa ne amuñu lu ñu lekk lu ñu reer tey moom mu fande mu fab ak kii bopp gëleem ba yónnee leen ko kooko itam bi ñu ko ko joxee mu seet ne ah am na famille boo xam ne diw diw daal waa këram yaakaar naa duñu reer amuñu dara naa leen ko jox yëkkati jox ko kooku itam ne ah bi nga ko joxee man daal bu ma lekkee lii sama mbokk mii di xiif te amul dara lu mu lekk danaa def loo xam ne du jaadu naa ko ko yónnee yónnee ko kooku itam daal di koy yónnee moom it ku njëkk ko woon bopp gën a ba wër ba dellu saat ko joxee woon ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo leen defar ba seen xol set ba nga xam ne dara xam nga nit koo xam ne dara taxu ko ci àdduna bu faatoo daanañ ko jullee ndax ñii ne fardu kifaaya la ñii ne sunna la mook denc waaye dara takku ko ci àdduna àdduna médd la moo xam ne kooku dara takku ko ci du xasaw du dara du ci du ko ci takk kooku mooy ki set ki sell mooy ñi ñuy wax as-siddiqu shuhadaa shuhadaa ñi nga xam ne bi ñu dañuy dem ci xare ba di xare ji ngir yàlla jaay seen bakkan wacc seen bëggatuñu seen kër bëggatuñu seen doom bëggatuñu seen soxna bëggatuñu seen xarit bëggatuñu seen alal ndax kuy dem fas yéenee dee nga fas yéenee nga xam ne xalaat ne boo demee da ngay dee yooyu yëpp dootoo ko bëgg ndax dootoo dellu si jëriñoo ko ñooñu ñoo jaay seen lépp jëndee àjjana ñooñu ñoom bu ñu leen rayoon it suñu leen sangul sanguñu leen julleewuñu leen yére yi nga xam ne moom la ñu doon xeexe ak deret ji ci taq ak gànnaay yi moo leen di seede yebal xëyam deret ji ju kawee la ñu am ndax suñu borom nee na ñooñu faatuwuñu ñu ngay dund nun kon nun jullit nag nu war a gànnaayu fogaru góorgóorlu ngir liggéey adduna ak alaxira ndegam ñi nga xam ne adduna rek lañ gëm adduna rek la ñu seet ñoo du noppalu di sonn rawatina nun ñu bëgg adduna bëgg alaxira alquran suñu borom dafa ne wa aiddu lahum mastataatum min quwatin wa min ribatil xayri turhibuuna bihi aduwa allahi wa aduwakum ban ban waxtoo jot ah sept heures demi kon nag defe naa ne léegi laaj yi des na kon laaj yi mën nañ ko cee xajal wala déet ah du huit heures la ñuy arrêté huit heures la ñuy arrêté waaw waaw te comme nag sept heures demi jot na genn wàll wax man trente minutes ñu def ko ci laaj yi waaw ma dolli cinq minutes waaw kon loolu lépp nag dafa am loo xam ne lii moom lañ tuddee ab yar maanaam melal nit ki melo bi nga xam ne bu ko melowoo dootu bëgg lu bon te day xel ci lu baax melowoo buñ ko joxee nit ki rek jox nañ ko texe àddina ak ko àllaaxira moo di al adab moo tax ñu ne xaleel buy soog a judd ba ba muy commencé xàmmee fukk ba muy am juróom-benni at xolam dafa mel ne ndestay maanaam bol boobu ñu tooyal pat ngeen pat nam la neex nga koy tabaxee xale bi ñu ne nag lu lu jiitu ci xolam rek mooy li ciy sax lu jiitu ci xolam mooy li ci sax ñu ne taalim fi waxti sigari ka naqsh fil xajar xale bu fekkee ne xale bu tuuti la dara duggagul ci boppam dara duggagul ci xolam li nga ko jàngal ak li ngay dugal ci boppam daf ci sax ba bu màggee même bu ci soon ay nit ñu ko féréw li bu màggee rek dana dellu siwaat fokk ndax loolu daf ci sax ba faw xamle mag maanaam a taalimu fil kibari kalkat bi fawqal maa i pour mag nga di ko jàngal mu mel ne yaa ngi bind ci kaw ndox loo passé mu far waaye nag pour jéem a baax moom mag ak xaleel ñoo ci mag sax moo ko gën a mën xaleel dafa am defe naa imma Cheikh Abdul Abu Yazid Bistami wala Abu Zeydin wala Cheikh Sa Sahl ibn Abdullahi Tustari kenn si ñoom bu muy xaleel dañ ko daan wax bis bu ne muy wax allahu ma'i allahu shahidi allahu nazirun ilayya ba nga xam ne day yëg toujours day yëg maanaam jege gi ko suñu borom jege maanaam yuxissu bi xudurillahi fi qalbihi masalan loolu dafay sax ci ci xolam ba nga xam ne allahuma ay yàllaa ngi ànd ak man allahu shahidi yàllaa ngi may seede fu ma toll allahu nazirun ilay suñu borom mu ngi may xool fu ma nekk nga xale bu tuuti maanaam fi fi fi la umri fi fi taasi yi min umri yi ñu saxal loolu ci boppam ba nga xam ne bi mu màggee dafa bokk ci ku mënul awliya yi gën a kawe ndax yëg gi muy yëg màggaayu suñu borom ci kii ndax liñ ko si jëmbat ci ba mu nekkee xalel ci taadib foofu la commencé ndax taadib dafay tàmbali fi fi masalan fii hadi rida aw baadu qalil masalan li wax ne sidina Abdullah ibn Abbas wala am na keneen ku waxat ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne ko muy lekk fu nekk mu wëndeel loxoom ci muy lekk mu ne ko qul bismillahi wa kul bi yaminika wa kul bi ma yalika aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam nga xam ne kon yar day commencé ci bi xale bi nekkee tuuti tuuti foofu la yar di commencé boobu lañ koy teg ci yoon wi nga xam ne bu ëllëgee du ko jafe ndax dootu xam beneen yoon te dootu mën leneen bu ko jéemoon sax du ko mën même boo ànd ak ñu koy def dootu du xa du leen xajoo day daal di dem lii moom la lii sëñ bi wax ci tasawudu sixaar fi mu naan kullu man baadara waqta sigari ila alhuda staraaxa waqta alkibari waaye wa man tadaaraka alladi qad faata min allaga wa amara al awqaata bi tawbati nasuxi wal iqbaali ila al ilahi faaza bil kamaali ki nga xam ne ci bi muy xaleel lañ ko teg ci yoonu jub noppalu na waaye kii dem bay mag itam mu dabal dab dabaatal la ko faatoon dundal waxtu yi ci tuub gu gu dëggu ak jublu ci yàlla dana texe te dana amuk mat kooku itam ndax wa man yaxshu an dicri rahmani nuqayid lahu sheytaanan fa huwa lahu qarin képp ko xam ne wan nga gannaaw fàttaliku yàlla wan gannaaw turu yàlla ndax nasullaha fa nasiyahum ñaari manzil la rekk am imma fadkuruni adkurkum aw nasullaha fa nasiyahum soo fàttalikoo suñu borom di ko fàttaliku mu di la fàttalikoo suñu borom du fàtte waaye fàttalikoom mooy jëflante yow jëfi koo xam ne doo ko fàtte mukk te lu baax lu ñëw nga jox ko ci wala mooy fadkuruni adkurkum nasullaha fa nasiyahum bu fekkente ne nit ki dafa fàtte yàlla te mooy mu fàtte ëllëg te ku fàtte ëllëg sa ëllëg fàtte nga sa bopp boo fàttee sa bopp fàtte mooy ki fàtte diineem fàtte ay mbokkam fàtte réewam fàtte na léppam kooku moom mooy kiy jëf jëfi koo xam ne kenn néewu ko ëllëg dara dana am nga xam ne dafa gëm li ñuy gëm nga xam ne boo dee rek jeex na kooku mooy nasullaha fa nasiyahum wa man yaxshu moo wa man yaxshu an zikri rahmani nuqayid lahu sheytaanan fa huwa lahu qarin ki nga xam ne dafa woon gannaaw kon fàttaliku yàlla mu gis dara ba mu fàttaliku yàlla ndax nit ki bu fekkee ne danañ toog ay jotaay di fàttaliku li ci kanamam di fàttaliku li mu weesu muy def ci xelam ñi ko gën a farlu ñi gën a baax ak njàmbaar gi ñu am mu di leen roy di leen ñee waaye ñi ko ëppalee ci àdduna gën koo am chance wërsëg mu di leen fàtte di seet ci àdduna ñi ko féete suuf ñi nga xam ne moo leen ëppalee ñi nga xam ne dañ ne woon siiw li mu am ñu am ko ñi nga xam ne jël la daan amuñu dara waaye benn tànk la ñu am wala benn loxo wala benn bët wala duñ gis dara wala duñu dégg dara bu seetee si ñooñu dana sant boromam waaye bu fekkee ne mu ngi seet ñi am lu bare du sant mukk yàlla ndax du gis li mu ko defal bu fekkente ne itam mu ngi seet ñi ko gën a sàggan du góorgóorlu mukk du farlu bu fekkee ne wax bi jot naa naa waaw baax kon xaq bi bu nekk ay junni at la mu yàgg ko ca waaye mooy sax safara du génn mukk mooy ki nanguwul amul yàlla ki nga xam ne moom ngir moom ci xalaatam yàlla amul ni ki ñuy wax libre penseur yi athée yi ñooñu le fétichiste yi nga xam ne ku nangu rek amul yàlla waaye ku nangu amul yàlla rek da nga génn safara dégg nga ñu ne yomal xeyaat yonent bi ci nekk da nga am njàqare kenn du tal saw xeet du dul Muhammad sallallahu taala wa sallam moo naan ummati ummati yaqulu yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham xayra min rahman kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul benn tolluwaay boo xam ne dana fàtte xeetam wi ndax yërmande yu bari yu ñu leen yërëm def kon ku nekk ngi ku nekk ngi tal sa bopp naan naa mucc ak ñi ma xalaat ki nga xam ne moom boppam taxu koy wax xeetam bi rek ci la ci la xelam du nekk fu mu toll ummati ummati ummati suñu borom xeetam bi nga wax ne bu fekkee ne yamal xiyam siraat ñu ngi jéggi siraat sallallahu alayhi wa sallam mu ngi taxaw ci boor bi naan rabbi sallim sallim sallim sallim musalal musalal malaayka yi taxaw siraat niñ koy misaale naan mu ngi sayee ne karaw gën a yëngu jaar yéeg bi juróomi téeméeri at tàll bi juróomi téeméeri at wàcc juróomi téeméeri at nit ñi di ko jéggi ci kem seeni jëf mu tiim jaar na ma maanaam mu tiim safara safara yëpp xam nga safara yëpp juróom-ñaari bunt laa laha sabatu abwaabin li kulli baabin minhum juz'un maqsuum jeex jahannam laza xotana sair jahim saqar hawiya bu yëpp ay safara la jahannama tiim nit ki di jaar ci gam ni nga ko waxee rek ñii gaawee ne xel ñii gaawee ne melax ñii ci misaal gaawee ne oto bu gën a gaaw wala avion ñii gaawee ne fas muy daw ñii comme nit kuy daw bonkal muy daw tawa ak ñii di dox ñii di tem ñii di raam ñii bof ngu di jàppandu tiim safara wi mu di leen xoyam di taal karaw gi léeg-léeg loxo bi rëcc mu jàpp dabaaxal ba bi muy jàll yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi taxaw ci bunt bi naan rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim allahumma sallim sallim sallim kon yërmandeem ci xeetam gi daanaka mu mënee fi ko wax ku nekk la sallallahu alayhi wasallam kon daanaka képp ku dugg àjjana ci ngëneelam ndax barkeem gannaaw yërmande suñu borom tabaraka wa taala moo leen laaj ñaareel laaj moom jigu nii mu yaakaar naa ñaxtu la.
waaye wala ki ko doon laaj moo leeral bayit bi ci bi mu nekk ci mun jooju
taw si xaar.
dafa wut dara li mu àgg ah li mu ñetti waxtu yooyu nga xam ne boo ko bàyyee ci ñett li mu ñett nu war laa rey ci dafa wut dara
ah waaw ci fii tuub loo gi isti al istitaaba al istitaaba mooy koo xam ne dafa bañ a julli xam nga ni lépp loo xam ne lu war la dikk na dikkaram maanaam quraanan wala ah, sunnatan wala ijmaan ku ko weddi daañu la tuubloo ñetti fan boo tuubul nag ñu soog lay rey buñ la reyee nag duñ la rey xam nga ñaar rey ñaar rey rey maanaam xatlu xaddan nga xam ni kooku ba tey nangu nañ ne jullit la waaye nag dañ koy rey ci yàq xaddan mooy géttan wala xatlul kufri mooy rey ne kii yéefar la xatlul kufri kuñ ko rey duñ la jullee duñ la jubale xibla sa bàmmeel buñ la suulee duñ ko jigéenal yooyu yëpp duñ la ci defal dara ki nga xam ne nag moom dafa nangu gëm na ne loolu lu war la waaye bañ na koo def ñu taxawal ko ne ko defal defal mu bañ ba nga xam ne waxtu rek a des bu dee julli dañuy seet bi nga xam ne bu kàbbaroon léegi matal ñaari waxtu matal taxawaay bi ak rukkoo yi ak sujjóot bi benn ba mu rakkaa bi mag bu loolu boo xam ne loolu dong dong a des ci waxtu wi bu dalul di tuub fi saa si ñu rey ko kooku moom tam fekk nangu na moom ne julli war na waaye benn sabab bu mu mën a wax rek nee na man du ma julli waaye nangu na ne war na kooku du yéefar jullit la ndax nangu na ne jullit war na naka noonu itam laaj ak lépp loo xam ne alxuraan saxal na ko ak sunna wala ijma dajeeg fóore yi ku ko weddi ci lislaam rey kéefar lañ day rey ku nangu nag ne am na waaye defuloo ko ñu taxawale ne la def ko nga bañ koo def buñ la tuubloo bu fekkee ne da nga ko weddi ñu tuubloo la ñetti fan ñooñu bu fekkee ne weesu na rek lañ lay sooga nag géttan géttan boobu ñëw maanaam rey gi aji woor ji nga xam ne génn ko doon mbirum asaka bi yàgg bu ko génn.
waaw asaka moom sunna la waaye sunna suñu feddali la zakatul fitri wala asaka asaka yi Asaka muurum koor.
muurum koor waaw asaka yi dox waaw zakatul fitri sunna suñu mu akkadatun day war moo xam gor jaam ba gor ba jaam di am amatul gor jaam góor jigéen mag xale képp kuy julli rek war na la kuy julli rek zakatul fitri war na la war nañ ko génne dañuy wax nag ne sax koor gi dañ koy aj ci diggante asamaan yi fekk génne woo muuru koor ni du dem boo génnee muuru koor bi nag mu soog a dem kon nit ki nga xam ne toog na ay at génnewu ko te mu xam at yi ni mu toll muuru koor yokk na jafewul bariwul mu génne ko mu génne ko moo gën bu ko defee ay koor ñu nangu ko ndax koor gi bu fekkee ne dañ koy aj rek ba ngay joxe muuru koor ñu soog koy nangu maanaam aj gi mooy nanguwuñ ko gàttuwuñ ko dàquñ ko ndax mën nga dem jëf joxe muuru koor boo joxe sàggan ko nag moom ŋàññi nañ ko sàggane ko bañ koo génne ci waxtoom ndax liñ ci gën a sopp mooy bala ngay julli ji ndax jullit ñëpp ñu mën a bu ñuy julli seen xel dal ki nga xam ne dafa ñàkk ba muur koor mi ci la compté woon pour ñu jox ko ko bu fekkee ne joxuñu ko ko ba mu dem di julli ji nga xam ne xamagul bu dee aji ñàkk xamagul dana am lu mu reere wala lu mu ndékkee wala lu mu añee këram wala déet ñu sopp na ñu teel ko koo jox bala ñuy julli ji bu ko defee xelam dal bu demee mën a nekk ci julli gi na mu waree xam ngeen ne julli moom bu lépp loo xam ne saxet dana ci nekk bala ngay kàbbar na nga ko toppatoo ba mu set yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam benn bis ñuy julli ci timis mu dem ba ba ñu dugg ci jàkka ji bay waaj a taxawal mu fàttali ko dama fàttali fi ne Abu Hurayra dégg nga wala bilaa am ci kenn mu ne ko ndax xorom nga kadir ga booba dañ doon togg lu ñuy jëfandikoo mu ne ko déet mu ne ko dawal xorom ko ndax da nga day bañ xelam dem ci wala mu di ko fàttaliku bu ñuy julli tax na ñi nga xam ne way farlu lañu bala ñuy julli dañuy toog wala ñu taxaw bala julli kabare jot delloo si seen traay bàmmeel delloo si sukuraat te jënd ak jéggi siraat taxawaayu bis bi ci mel fàtt ak fàttali ko yooyu yëpp ba nga xam ne seen xel day nekk ci julli gi ñu gën a mën a teewlu di daal di kabar julli ndax toujours dooy wax ne ki nga xam ne mooy faral di fàttaliku ak di xalaat yooyu moom rek mooy mën a teewlu si julli waaye koo xam ne doo teewlu lu dul ba julli jot doo mën a teewlu mukk doo mën a teewlu waaye bu fekkee ne da ngay faral di toog di di wéet di xalaat bàmmeel di xalaat bàkkaar yi di xalaat dee di xalaat yooyu yëpp da nga ciy dem ba mujj lu nekk daf lay waar lu xool rek jële ci ak waar mu waar na ci yàlla bu day da ngay àgg boo xam ne boo xasee ba kaabar sa xel dootuma dem ci mbiri àdduna dootuma dem ci dara lu dul rek julli gi teewlu nag ñetti façon la teewlu bi ci gën a kile bi gën a woyof mooy nga tëral teg sa bàmmeel nit ñi la buñ la suulee malaaka yi dina laaj suuf si ni mu diisee ak ni mu tàng ngelaw du la dugg ñu laxas la ba nga xëj dugal ci kàr mu sew nga xam ne doo mën a wëlbatiku boo dundoon sax doo mën a yëngu ñu suul ba mu fees jël dem ci la fa day fàttaliku yooyu yëpp faral di fàttaliku di ko faral di fàttaliku bu fekkee ne yaa ngi julli sa xel dem ci loolu sa xel du dem ci mbiri àdduna kooku teewlu la waaye am na teewlu yu ko gën a ba tey ëpp doole teewlu bi ko ëpp doole mooy nga teewlu bi nga taxawee ci kanam yàlla ndax yow ba nga ne allahu akbar da ngaa signé teg suñu borom tabaraka wa taala contrat lépp moo ko moom sa bët bul xoolal dara du jëm ci àddina sa nopp bul déglootu dara du jëm ci àddina sa jëm taxawal temm nga teewlu nag bi nga taxawee ci kanamu suñu borom tabaraka wa taala nga teewlu mag gëm googu bu foor boobu dal ci sa kaw fàtte ko xam ñaareelu teewlu teewlu bu ama ama am maanaa ngoog ñetteelu teewlu bi mooy li ngay jàng alquran di saxel dem ci nekk ci ngay teewlu bu fekkee ne nag eh, dégg nga arab xam nga alquran ngay teewlu maanaa yi teewlu yooyu jaam bi bu fekkente ne ku ci yàgg la ba ragal yàlla waxtu wu kabare day jàlloo kumpa yi kabare ba nga xam ne génn na léppam ci àdduna yonente bi sallallahu alayhi wasallam julli takkusaan fi mas fi masjidi nabawi mu kabar ñu wan ko àjjana ba mu jéggi benn tànk tàllal loxo pour bëgg a watt ci meññeent bi ne bu ma ci wattoon benn doom rek waa réew bépp daañu ci doy daañu ci mel mu ne uridat alayya aljannatu fi ardi hadha alhaa'iti uridat alayya aljannatu fi ardi hadha alhaa'iti ay baaw dañu wax ne yooyu ngay gis ci julli ci nit ki nga xam ne xolam set na ba set ba set ndax jotuñu ci àgg ne woon naa jëf ni mu yokkee gëm ba nga xam ne ñaari nit bu ñu bokkee gëm ñu tolloo ngëm képp képp képp kenn ki jëf jëf ju baax ci bëccëg bi jaamu ci yàlla kenn ki bañ a jëf dana ko ëpp li ndax ki nga xam ne moo jëfoon buy nelaw leer yi day dikk ci xolam muy nelaw lu ko yëg ki jëful benn leer du ñëw ci moom bu ko defee mu daal di koy raw ah rawal boobu mu koy raw jëf ji la ko rawee ndax jëf day doon di gëm te gëm day tax xarit boo xarit mu
فلا بأس أو فلا بأس أن تتكلم بلغة عربية ولغة يعني لغة السنغال كي يفهم